nag ngir dakkal lépp loo xam ne rek ay fitna la yuy juddu ci biir réewum Sénégal xiiroo beeg ŋaayoo beeg lépp loo xam ne rek jàpp na ne ay trahison la yéenekaay bi na njiitu réew mi kay ma ngay wane boppam bu baax a baax waaw waaw Sud Quotidien xëy fësal nag kàddu yi président Macky Sall mu fay naqarlu nag ñi mu jàppee ay soi-disant militants yoo xam ne dañuy taxaw rek di buur ak bum mi ci biir réew mi dem bay faat ay soxna yu ci seen yoon nekkul loolee nag dafay dakk yéenekaay bii di Le Quotidien daal di xëy nag fësal photo Macky Sall mu wax bay ñàngal moom it gi génn na ci pat pataaral gi mu nekkoon taxaw fas yéene defante ak ñii di waa kujje gi Vox Populi ne lu jëm ci dossier sonk bii nag lépp loo xamante ni nii def nañ ko ca rek ci yoon lañu ko teg te it nag ñu ngi ko jaarale eh, ci ay normes démocratiques yi gën a kawe kàddu yooyee nag la njiitu réew mi daal di yëkkati ci boobee yéenekaay La Tribune nag daal di xëy moom it fësal président Macky Sall mu nar a jeexal ak nguuram eh, ci ay jafe-jafe ndax bu ñu xoolee taxawaay bi mu nar a am ci janoom ak kujje gi dundu gu cher gi askan wi nekkee ñàkk xëyum ndaw ñi loolee lépp nag di ay jafe yoo xam ngay gën di yokku ci njeexitalu nguurug Macky am ndax ñi nga xam ne ñoo di waa F24 ña ngay wooteeb ko defee nag ñu daal di wàcc ci mbedd mi bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi di l'info élection yu leer libre ba noppi nag ku ci war a bokk ñu bàyyi la nga bokk ci loolee nag moo sabab F24 fas yéene wàcc ci mbedd mi di woo askan wi ci ab mobilisation kaay bii di Sud Quotidien dikk ci candidat bu waa Pastef ni seen candidat bi xel dalu ca de ndax nag du ñëpp ci ànd te it nag yenn wi diis moom ba noppi ab dossier moom Bassirou Diomaye Faye ma nga ca kanamu yoon beneenub yéenekaay ni plan B bu waa Pastef kay jiixi jaaxa tàmbali na cee am ndax ci jamono ji mi ngi ci kaso bi moom Bassirou Diomaye fay ab dossier mi ngi ci kanamu yoon waaye lu mu ci mënti doon Sud Quotidien ma ngi cey séq ak waxtaan ñi nga xam ne ay expert lañ ci wàllu politique beneenub yéenekaay bu Wàddu jëm nag ci candidat bu Benno Bokk Yaakaar ak bu Pastef bokk na ci bés bi le jour moom nag ma ngay dikkaat ci Amadou Ba ak Bassirou Diomaye Faye candidat Macky Sall ak Sonko bi daal duel dëggantaan la ngir ay leeral ubbi leen pass cinq bu yéene kaay bi coow laa ngi wéy de ba naga ni sii ci candidature bu Bassirou Diomaye Faye rawatina nag décision boo xam ne rek CEDEAO jël na ko ci kaw Pastef yéene kaay bii di 24 heures xëy fësal kàddu yi Ndiaga Sylla muy xamle ne nag tas nañu parti bi naam waaye nag jotewul dara ak taxawaay bi nga xam ne responsable yi Pastef yi war nañ koo taxawee ndax ay élection mën nañu koo demee ci coalition mën nañu koo demee ci parti politique le quotidien ne lu mu ci mënti doon jiixi jaaxa daal am na ci Bassirou Faye mi nga xam ne rek moo fas yéene teewal waa Pastef ci élection yu 2024 Amadou ba candidat fantôme yéen kaay bii nag nga xamante ne moo di l'info moo xëy daal di koy fësal ginnaaw ci tournée économique bi nga xam ne moom la njiitu réew mi doon amal nag mbirum Amadou Ba kenn waxut jëm ca Walf Quotidien faylu ko ni Macky Sall kay dafa écrasé kii nga xam ne moo di candidat bu Benno Bokk Yaakaar ci jamono joojee nag moom njiitu réew mi ma ngay ñaxtul dendu Afrique foofee ca Berlin jëm nag ci relation bi war a dox ci diggante waa biti réew ak dendu Afrique enquête yéen kaay dellu si ne Macky kay bàyyiwul dara lépp lu mu jàpp ne Afrique war na ko am rek bekki na ko démb ci seen ndaje moomee ñu doon amal les échos yéene kaay dellu nag ci résultat yu doy waar yi nga xam ne moom moo tukkee ci candidat yi doon amal droit public ci concours d'agrégation du CAMES libération xëy dikkal ñu ci musiba mi nga xam ne rek am na ca forêt bu Tengor yi mu ñuy xamal ne ñaari tuut tànk la ñu fa gis ginnaaw ay fan ba ñu réeree seeni mbokk foofee ca Bignona tàggat yaram la ñuy wax ak stade gaynde yi na ci wàccaay ci éliminatoire mondial atum 2026 Togo Sénégal lay doon bu 16h jotee réew dellu siwaat nag ci gaynde yi nga xam ne ñu ngi xool nees mën a def ngir mën a daan waa Togo